la DST mooy la direction direction de la surveillance du territoire. ñoom dañu considéré woon imaam mi comme une source ouverte. déglu bu baax li may wax de. mooy maanaam jàppoon nañ ni que uma imam ña fay ñëw mën nañ fa taataane ay éléments yi nga xam ne dana leen permettre ñu remonter information sur la sur le terrorisme ou sur le blanchiment d'argent ou sur. Euh, l'association de malfaiteurs loolu moo pratiquement je crois bien mun naa ci juum mais lii nga xam ne moo taxoon DST di intéressé wu à l'imam je crois que c'est ce qui a été à l'origine de la précipitation pour ñu ñu jàpp ko parce que la concurrence dans les services de police et de gendarmerie kooku ça coule de source mm-hmm. ñëpp ko xam c'est dans tous les pays rivalité rivalité la jàpp nañ ne xëy na ñii fay dem ñii yëg ñii yëg nii am na fa dara. Mhm. donc ñun nañu gaaw dem téye ji ko. Mhm. moom il a été une victime collatérale. Mhm. man dama waxoon euh, à l'époque ci Dakar Times bi ñu ko téye ma bindoon ma ne gisuma juge Sénégal. gisuma juge Sénégal. bu sañ a entrer en voie de condamnation par rapport à ce qui existait dans le PV et puis pour dire pour être plus sérieux Moustapha booy lutter contre le terrorisme d'accord c'est des crimes spéciaux donc il faut une administration policière spéciale il faudra une administration judiciaire spéciale ñun fii Sénégal on n'a pas un parquet antiterroriste on n'a pas de juge antiterroriste jànguñu ko xamuñu ko bu ñu ko condamné on l'aurait ne sur la voie du droit général mooy le droit code pénal général mm-hmm. alors que le terrorisme c'est une spécificité spéciale man bu bi ma toogee gisuma ci diir boobu ñu créer unité spéciale mooy euh, c'est ki nu mu tudd parquet antiterroriste mm-hmm. laa ne kon du mujj fenn dañ koy bàyyi mm-hmm. loolu nag il faut que tamit Pape Ndiaye daf ko wax nee na gars yi ni ñu jógandoowee nii nii nii nii nii il faut tamit mu doon jàngat pour tous les Sénégalais mooy ñun ñii di wax ñun ñii di wax ñun ñii yàlla defal ñuy wax waaw dañ bëgg a dem ci daaw bi ñun lii kon sataan war na leen leeral aussi lu am solo ci li nga wax ci PV bu njëkk bañ defaroon ak PV bu mujj bi bokkul parce que bañ njëkkee defar PV mhm. procureur euh, ba mu gisee PV daf leen di dindi leen li changé leen li génne leen ci li ak lii ak lii ak lii mhm. procureur bi fi nekk tey jii nii mu procureur de la République sëñ Bassirou mhm. bopp dem naa toog bureau am waxtaan ak moom ma ne ko coow li bëri na trop pour monsieur le procureur lan mooy mbir mi mu ne ma PV bi ma gendarme yi indi la ma ci gis su ma ko bàyyi woon dëkk bi day tàkk ma ko lan moo nekkoon ci PV mu ne accusation yu grave yoo xamante ni bindoon nañ ci ne Imam Ndao ak groupe dañu amoon intention dem exploser xabru sëñ Touba. exploser xabru Abla Alaaji Malick dem Casamance lëkkaloo ak rebelle pour taal réew mi ne dindi leen lii génne leen ko ci PV bi leen ma beneen PV mais lii bokk ci parce que lii ay accusation non seulement accusation yu garaaw la yoo xam ne benn preuve mënu ko étayé non non c'est vrai donc gis nga ñoom ca njëlbeen dafa tiit non mën dañ ko bind gis ko def imam daw assassin boo dafa doy waar quoi mooy li may wax euh, li nga xamante ne moom laa doon waxtaan ak euh, benn jour président Sid Lamine ah. maanaam xam nga laaj naa ko ne ko ndax am nga ay financement yu jóge bitim réew mm-hmm. ak wax nañ ko aussi ne maanaam li muy xutba dafa tàng mm-hmm. am na ñuy jóge bu ko araam di ñëw mm-hmm. président directeur général bi ñu waxtaanee daf ne ma demaatal ci kër ga yow nga xoolal sa bopp nga wax ma loo gis parce que moom it comme da doon wax ak Sénégal. Mhm. li muy wax day bëgg ko teg ay base yu leer. Mhm. Mhm. bi ma duggee néegu imam. maay journaliste bi yow bi ñu lay jël see même pas yàggul. laa dugg si ci néeg sa néeg laajte sa néeg dugg fa wax nga dëgg kuy jot ay financement bitim réew dama hmm. fa gis man hmm. ci néeg hmm. bi bi tey mooy pajaas moo fa nekk xaw ma ne xam nga pajaas bu baax sax yow waxoo man la pajaas la wax pajaas man ñi ko xamul kay laa leen koy leeral ay saako la yu ñu jël ñaw ko ba mu forme mat la ñu def ci ay ñax ah. loolu ay pajaas léegi ñaareel ba mooy boobu voilà ñaareel ba mooy néeg bi maanaam ñeenti koñ yi benn koñ bi yeggul bu tawee day dugg mhm. ah néeg boobu la imaam di fanaan maanaam ci biir néeg bi amul tappi amul karo nii ma la ko décrire laa ko décrire présidentiel la yàlla yàlla yokk rek mu ci dëgg ma ne ko am na ma ne ko am na te ñu ngi wax ay milliards mais xaw ma milliards fu mu nekk mais lekkagu ko parce que maanaam fi muy jàppee mhm. ci biir néeg bi ci biir néeg bi dañoo def ay ay. ay mool ay mool yu ñu raax ak ciment ak loxo. Mm-hmm. wërale ko nii teg ci ban wu dénk. Mm-hmm. bënn miir bi mu génn ci mbedd bi yow yow dem nga ci barab ci biir néeg bi mm-hmm. imaam xam na li may wax <laughs> léegi nag looloo tax non def la non def la naan foofu nu ma bàyyi de imaam est-ce que mbuboowul loolu moom it làq milliards yi <laughs> am beneen kër non non non dañuy waxtaan mbuboo pauvreté waaw waaw waaw est-ce que imaam mbuboowul la benn attends ah, ah, ah, non non xaar leen rek def la naan rek dañuy waxtaan maanaam jumaa jumaa ji waaw benn minaret moo fa nekk te yeggul bokk la geneen jumaa yi nga fa gis benn sooroor moo fa nekk te yeggul. Ah. dañ ko bi maa peinture la peinture yi nga xam ne boo xoosee sax mu deñ laso ah, maanaam te man Kaolack laa dëkk. Mm-hmm. def naa ay investigation ñun ni policiers yi takk der yi ak gendarme doon defee investigation. ñun journalistes yi noonu lañ leen defee investigation. parce que dafa am nitu diine. Mm-hmm. bu yore wal fajri. Mm-hmm. nitu diine boo xam ne kër soxna la bokk. dafa war a xool lan moo tax ñuy topp imam te wóor na ma ne. information yi ma ko doon jox bu gisoon leneen. Mm. du défendre imam ni ma xamee lu wér. Mm. directeur général mm. foo gi nekk taxaw na fa mu ne ma daal kon ñii ci wax ji la ñu basé maanaam jóg leen xeex kuñ kii na nga sàcc ñu rey la dagg sa loxo loolu ci alxuraan la nekk yàlla moo ko wax. Mm-hmm. Mm-hmm. kon kon amuñu preuve dañ ko war a looloo taxoon télé yu nekk. bu ngeen gisee directeur général wu ci combat engagé wu moo tax tableau bi ko jox nii tableau bu am solo ah, a dolli <laughs> mooy su ngeen xoolee liñ fi wax nii. ak ñi suivre woon procès bi. waaw da ngay gis ni man bi procès bi jeexee. Mhm. dama ni Imaam Ndao dañ ko war a jéggulu mhm. xam nga dañ ko war a jéggulu borom photo bi jox ma gis nga réew. <laughs> kii il gis nga kii. Mhm. bi nu bi nu toogee waxtaan ba nit ñi yëpp génn. bu des man moom. kàddu gi la wax. waaw non parce te keroog la ma gën a yéem alal dafa sax ci xool mais keroog un million moom la jëm ñu yëkkati ne ma lii maa la ko jégaloo ci turu sénégalais yëpp. est-ce que moom tegu ca ni la moom président de la république ci boppam nee na ko yow lii ñu la jiiñ terroriste. si di wax na ko président de la république moom euh, effectivement euh, ay waxi ay ay waxi kasaaw kasaaw. nee na ko imaam yi deful dara. waaw donc man li ma jàpp mooy gis nga réew. mënuñoo sànq dama ko fee junj ma ni. réew bu ñu jëlee ñi nga xam ne ay jaamukatu yàlla lañ mhm. dañoo toroxlu gis nga contrairement bi day c'est vrai que li ngay posé en tant que journaliste nga ko posé mhm. mais alal juñ lay jiiñ naan ay milliards ngay yor doo tëdd ci pajaas nañ waxante dëgg mhm. dëgg dëgg alal lu muy jëriñ lu muy jëriñ donc c'est important xam nga nit alal buñ la koy jiiñ ñun suñu mbokk yi nu fiy jiiñ maanaam suñu oligarchie boobu may tuddee ñun minorité bi nga am ñoo accaparé wu les richesses donc àgguñu fu ñu yàlla àggul àgguñu jël àgguñu fu ñu kenn àggul jël suñu aral di ci tabax seen i di def leen neex di dunal seen i compte bancaire ciy caaxaan te demaluñ ñu fenn nag ci caaxaan nga mhm. une minorité boo xam ñoo accaparé wu les richesses di di diriger sénégalais ëpp ñu trois cent personnes quatre cent personnes mhm. di nga xëccoonte pouvoir bi seen biir di def lu leen neex ñooñu alal jooj bu ñu koy wut pour bànneexoo tax ñu koy wut ñoom seen bopp ak seen njaboot mhm. kon alal kenn du ko jël di ko teg nee rek di ko xool. déedéet bu fekkee dañ laa jiñ ay milliards dañoo mën a firndeel ni yow mii milliards la jiñ c' est parce que war nañoo mën a gis nga def ci dara wala ñu teg ca ñu teg loxo ca ah. wala ñu def ci ab compte bancaire génne ko. exactement mais yow ab justice. ak ni justice amee importance ñu mën a jiñ nit lu mel noonu. mënuñoo hmm. génne benn compte bancaire. bon si teg nañ ca lu man 2 euh, millions wala 3 millions. Hmm. mënuñoo dem ca kër ga gis fa lu ñu tabax lu ñu mën a wax moo ko wala koo jege wala fu ñu suul xaalis wala fu ñu hmm. suul xaalis ba wala fa ñu war a def leen ñu toog ba neex leen téye nit ñetti at ñetti at hmm. presque ñetti at nga téye ko nit bàyyi ko noonu te mujjul fenn te ña ko defoon dara fekku leen ci man jàpp naa ne état bu yoree loolu da war a taxaw jéggalu jëmm ji hmm. gis nga réew mi suñu bëggee jàmm am ci suñu pénc dañuy waxante dëgg gis nga réew mënuñu fee nekk di toroxal ay jaamukatu yàlla ñoo xam dañuy toroxlu gis ne adduna bii dañ koo dëddu kon ne ko sunu maam yu mbaaxee doon defe ñoom sunu maam euh, Serigne Touba ak ñoom El Hadj Malick mhm. di dund ba génn kenn gisu leen ñu tabax fi lenn dul tabax nit ak ay jikko ak ak ak lawal diine nit ku mel noonu loolu rek yitteel ko nga ñëw fekk ko toroxal ko ci kanamu njabootam téye ko di ko mënute mënute dem téye ko ñetti at tey ñuy taxaw ne moom juge ak ñun ñi seq justice naan dañuy xalaata sax naan dañuy woote boobu boobu dossier xaw man lu ma ci bëgg dolli mooy foo ñu xam ne ñun bu dee dañoo gëm ne ñun ay wëy ngëm lañ ñun Sénégal parce que dañ ne ay musulman ay chrétien ñoo fi dëkk kon ñun dañoo nekk ay wëy ngëm mm-hmm. dañoo war a xam ne terrorisme terrorisme bi ñuy yëngal ci àdduna bi xeex diinee ko lal du leneen ça c'est important ñu xam ko xeex diine moo ko lal mm-hmm. te ñooñu nekk ay juge ak ñëpp ñu wër justice bi ay musulman ay chrétien ñoo fa ne mm-hmm. dañoo am ay ngëm-ngëm kon nag guerre de civilisation bi nga xam si aujourd'hui ñi nga xam ñoo ŋànk le nouvel ordre mondial ñoo ko yore bëgg nërmee la ngëm-ngëm ak képp koo xam da ngaa gëm diine ñu teg la ci suuf toroxal la ñàkkal la fayda kooku jàpp naa ne ñoom nañu sóoraale àdduna bi day jeex te yàggatu ñun ñëpp suñ dund gi jeex na ba pare jeex na bu leen àdduna jaral mukk ñuy jéem a toroxal ab jullit boo xam defu leen dara ak ku leen ko mën a digal mhm. loolu man laa jàpp ne loolu laa jàng ci dossier bii te képp ku ci laale woon li ma gëm mooy ñu yëg ko ñu bañ ñu bañ ko yëg na nga daw seeti imaam ndaw jégglu ko tuub wax ko ne ko tooñ nam la te ñoo ngi jégglu parce que loolu moo gën ci réew mi mm-hmm. Mm-hmm. waaw dafa am benn lecture bu ma def imaam mm-hmm. buggoon la laaj ndax lecture boobu ngay def yow tamit parce que dañu jàpp ne yow rek yaa fi nekk imam bu ñu jàpp alors am na yeneen imam yoo xam ne tamit jàpp nañ leen fii ku mel ni imam Jànko def na six ans si kaso bi acquitté ko moom a jàpp acquitté ko ñu bàyyi ko defoo dara moom lañ njëkk tout à fait am na tamit bu ñu wax imam Sey mais ci même kii bi imam Sey waaw moom tamit ñu jàpp ko ci affaire u terrorisme apologie du terrorisme léegi man lecture bu ma euh, def mooy que mhm. dañu ñëw benn instant 2013 Macron euh, président Obama ñëw fii am lu mu fi wax ci affaire ngóor jigéen. bi président Macky Sall di tontu mu tontu ko ne Sénégal pare bu ñu. maanaam waxul ne du ko def mais dañ paree pare bu ñu. pare bu ñu. boobu ñu la jàpp. ci la attentat Charlie Hebdo yi amoon. waaw ba président Macky Sall demoon fa. léegi ñu ne. Matar Sarr bu mu koy wax sànq ñu ne yow bokkoon na si lu ñu la doon reproché mooy sa presse yi nga xamante ni dafa dëgër. sa mm-hmm. tàng. imam Sey tamit jàpp naa ne presse la doon def ci ci juma après mhm. julli ñu ne presse bi dafa dëgër ñu jàpp ko. surtout ci sànni léegi ñoom nekkul ne ñoom seen programme. seen programme président dafa wax ne góor jigéen pareeguñu pour dugal ko. Mhm. léegi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a mën a tere discours boobu di accepter homosexualité. Mhm. Euh, mu am. muy yéen ñi nga xamante ne yéenay tenir yeneen discours yi. ñu xoqatal leen ba dootu leen téyeeti ba dootu leen waxati discours yooyu. est-ce que da nga jàpp loolu. du leneen pour man. du leneen parce que discours discours bi ñuy tamit danañ ci sàmm yàlla subhanahu wa taala <coughs> danañ ci sàmm it suñuy mbokk yi nga xam ne dañoo ko ndax fi ne war naa ruus taxaw yëkkati sama làmmiñ di di xaste wala di saaga war naa ruus it traité benn tem wax ca loo xam ne buñ ko vérifié dañ naan lii du dëgg mm-hmm. moo tax samay discours yëpp dama koy segg ba mu leer ma ne lii nii la demee ma door jaa wax gis nga bi fi Obama ñëwee ajjuma ji ci tegee discours discours bu dal laa ca def wane ne ah nañ waat xel président li wax de def ne mhm. pareeguñu mhm. pareeguñu nag boo ñëwoon ci kër gi ne ah ana añ bi ñu ne paree pareegul. Hmm. mooy ma ci kaw taal ba ñu ngi koy togg. ça veut hmm. jeex na ça veut dire que boo demee ñëwaat xëy na fekk ñu jërëjëf <laughs> Charlie Hebdo boobu bi mu amee itam ci ñi ci njëkk a def ba ci la bokk ba génnee woon ki sax ne nañ bàyyi xel nag lii ñëw dana am benn arsenal bu mat ci wàllu luwaa yoo xam ne Europe ñu koy préparé hmm. te luwaa yooyu yëpp suñ kaw lañ koy appliqué pour lan. ñi daan wax dëgg yëpp ñu tey seen gémmiñ man nag loolu dama ci sant suñu borom bu baax ndax daan naa ko wax ci campénal yàlla xam na ko daan naa wax ne eh, lépp lu ma doon wax ci terrorisme doon ca def ay gëstu doon ko wax ci wàllu laïcité ak ñi nga xam ne ñooy les véritables terroristes su ma ci doon gëstu fukk su ma génnee danaa ci gëstu téeméer su ma ci doon wax fukk su génnee téeméer ya ma ca gëstu yëpp danaa ko danaa danaa danaa ko woon sama askan ndax jàpp naa ne suñu problème yëpp foofu la loolu l'oligarchie maçonnique boobu nga xam ne mondialiste moom la sëñ bi doon junju coono yiñ teg suñu askan dañ ko war a wan askan wi ba askan wi ci seen bët xañ gi ñu xañ suñ teraanga ba suñu ndaw ñii fees dell kaso bi loolu dañ ko war a wane ba ndaw ñi yëpp gis ko bu ko defee ñu xam ne ndeke lu leen day sëkk ci teraanga mu ngi fi mais nag dafa am oligarchie boo xam ne ñoo ñëw lépp luy suñu teraanga ñu jël ko yóbbu loolu Aliou Ndaw di ko wax da ko royee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga dee ci ci pour ñun ci ci kàddu dëgg googu moo ñu gën a dund ci nen yéen sa sal daf ñuy jàngaloo ne mawtun fi taatillah xayrun min alxayaati fi maasiyatillah nga dee ci topp yàlla moo gën foofu ngeen dund ci nës nësal ba dee ca hmm. moo tax discours bi du ma changé waaw ñu yëngalaat projet bi discours bi du changé ñu yënguwaat Aliou Ndaw ca kaso ba discours bi du changé kii moom yàlla tax ju di ko def ak bëgg sunu askan. imaam comme président nee na na nooy kay yooyu tamit imaam na nooy. non non rek bi tey bi tey bi tey mën naa tuuti rek fii mën naa dolli tuuti rek xam nga li mu wax nii. c'est important parce que sànq maa ngi ko bëggoon a juñ ñu ma ci kanam tuuti pour coowal ngóor jigéen li nga xam ni jógoon na fi ci ginnaaw xam nga ku ne xam na ni man ba coow lu jógee maa ko reeteetoon mm. mu jural ma lu bari nag <laughs> parce que Sénégal moom boo ñemee wax yenn yi mm. il faut nga ñeme aussi mm. kaso dékku yu bari mm-hmm. mais comme nii mu ko waxee mm-hmm. réew mi fokk am ñoo xam dañuy am courage taxaw waaw li nga xam ne wóor na leen ni lii seen aqulaay taalaa bu duggee ci askan wi dana ko yàq ñu taxaw reeteet ko ñëpp yëg ko sénégalais yi nag ñooy am seen responsabilité parce que bu ëllëgee ñun ñëpp ay rendre compte loolu sa problème ak coowal góor jigéen coowal ji góor jigéen ne xam nga bi ñu ko yëkkatee mm-hmm. président Macky Sall le 31 décembre dafa def discours au palais après le discours mu def conférence de presse ca conférence de presse ba mu ni bu dee ay financement ñoo tax ñu bëgg ñoo dugal loo njàngum góor jigéen ci biir école bi éducation amee tamit jël seen xaalis ñu dem. du loolu la wax. Hmm. éducation sexuelle. éducation sexuelle l'introduction de l'éducation sexuelle au niveau de l'élémentaire xam nga loolu moo doon coow mooy les principes directeurs yooyu ñu fi génne woon mooy le document de 64 pages bi nga xam si moom la UNESCO yore woon ba doon ci def benn atelier ca Sall itam andi woon coow. Hmm. ba man nii moo ko waxee Sénégal gépp naqarlu ko ñu jaaxle président Macky Sall était obligé donc mu fekk Sénégalais yi ne d'accord ci nguur jigéen gi ñu koy dugal. ci biir système éducatif ci surtout ci système élémentaire. Hmm. booba man ma génn ne président Macky Sall lool mu wax doyu ma doyu ma pourquoi parce que loolu comme la mu waxoon ca président Obama ba mu ñëwee ne ko la Sénégal n'est pas encore prêt yenn Sénégalais yi di ruube mën leen wax leer la mm. mooy ñun continuer ko mais ñu ngi waajal pare d'accord mais le Sénégal n'est pas encore prêt kuy pare gu ko mooy da nga mos a pare ñu ngi toog la réponse ferme devait être lii du ñu ko mos a def suñu réew parce que dëppawul ak suñuy diine mu jeex